pap gis nga dëkk bi suñu président bi ñuy waaj am tant que réglé wul mu enrichissement illicite problème corruption ak problème surfacturation dañuy sonn rek ñun dañuy sonn rek pap ñun sept mille milliards de budget lañ am yaa ngi dégg sept mille milliards de budget yi trois mille cinq cent milliards yi sax du demaat ci dëkk bi amul tax ndax surfacturation pap yow lépp loo war a jëndee cent francs mille francs nga koy jëndee ndax surfacturation ku ne da siy teg entreprise yi ñu ngi bëgg a dee ndax entreprise da ngay dem ñafe marché exécuter ko ba pare rien que pour nga jot sa xaalis au moins trente pour cent yi man li may wax nii dama koo xam ndax damaa yore entreprise yow da ngay def benn marché exécuter ko d'abord kenn du la jox avance nga def marché bi ba pare nga pare pour ñu fay la sa xaalis il faut 30% yi nga nangu bayiko entre tel fonctionnaire tel fonctionnaire jox kii jox jox pour këyit bi mun pousse sinon ken du la fay pap limay wax ni hein ah, kep ko xamné entrepreneur nga fi kuy liggéey ci ay marché xam nga ko Sénégal li ngay bàyyi ci ci ay koppar ci ay nuyo murit xaw ma guro xaw ma lan foo dem da ngay joxe sinon kayit bi du bouger waa léegi yow mun ngaa dem liggéey marché ba pare sonn si bénéfice bi nga séddoo waat kook ñi nga xam ne liggéeyuñ si dara nga waxee ñu la waa ji kat ki toog foofu moom nee na il faut nga jox ko boo ko joxul kayit gi du génn bañ koy signé mais Pape est-ce que loolu mun na continuer ah yow yaa jël risque yaa dem leb banque yaa exécuté yaa ñafe fay say ouvrier fay fay fay desul lu dul nga jël sa facture dem déposer ko ñu fay la ña fu mu war a jaar yëpp dix service wala dix personnes ku si ne ne la mandat il faut ma laal dara de à la fin da mujj dem sax ba yow dootoo nangu jël marché nee naa nañ leen dem APIX sénégalais du ñu liggéey si ay chiffres ak ay statistiques eh, xam nga booy créer entreprise APIX ngay dem nañu dem xool tey du la tey la kañ tey la kañ waaw le treize. septembre 2023 ñu ne la tey reconnaître nañu cent entreprise nga toog ba le treize septembre 2024 nga jukki si ñooñu cinq entreprise entreprises yëpp tëj nañ xam nga lu tax doo jot marché bi doo jot marché gis nga tubaab yi entreprise lu mu ndaw ndaw fi mu toog day am marché même sax yow bu fekkee yéen ñetti électricien ngeen ngeen créer kii ngeen créer benn GIE wala benn société fi ngeen toog noonu marché yi dañ leen fay fekk mais fii la moo tax ñenn ñi di nekk ay milliardaire mooy yow da nekk ministre nga jël sa doom yépp créer leen ay entreprise pap li may wax ni déglu mo bu baax de dafa xoot de nga ñëw fekk fi ay entrepreneur ah nga jox leen liggéey parce que ku nekk buy am marché dëkk day neex yow sa walu bopp yaay dem créer 10 entreprise yi sa doom yi sa jabar yi sa ki yow ministère bi nga yor entreprise yi fay liggéey yépp say entreprise la day ngoor ju baax cest à yooyu yaay fay sa bopp waa léegi kon léegi entreprise yële nga xam ne ñoom amuñu bàjjan amuñu nijaay kan moo leen di jàppale kan moo leen di jox marché léegi yow boo rëccee nag ba am marché ah ci biir ministère boobu ah boo ñëwee secretaire bi war a defar dossier bi ne la may jox daas ba ne la da nga may jox ka war a fay facture ba ministère des finances mu ne danga may jox ka war a joxe chèque ba trésor ne danga ma jox waa léegi yow boo pare fay say adjo banque ah ak say frais de tenue de compte lu koy loolu moo lay dese ah mais Pape lii moo indi yenn saa yi so amé possibilité deug deug xam la ngay def bolé la nga am fi sénégal dajalé ko hein ah dem outil visa hein ah djel avion dem europe parce que fofu au moins amna justice sociale nga togué fo do crise cardiaque comme man numay crise cardiaque ndax di mer di gis ay affaire yu lay metti ndax tubab dafa gis segam yow yow yaay nekk nit ku ñuul juddoo fa màggee woo fa bokkoo fa lim la war a fay mu la koy fay li nga war a yeyoo mu yee mu jox la ko asantuma asantuma yow nga bokk si benn dëkk boo xam ni yow ñoom duñ la jox dara maanaam dañ lay puus sax pour nga génn dëkk bi lii moo dal sénégalais yu bëri li nga gars yi dañ foog immigration clandestine jeunes yi rek la ah mais yow ñun suñu cadre yëpp dem nañ parce que da ngay nek fi jang mun li nga mun di exercer gaay di la fonto di la frustrer ben jour nga jël say bagage dem sa yoon nga dem yow ñu jox la cër bi nga xam ne Sénégal joxu ko ñu jox lako ko loy def pap kan moy kan moy kan moy dund pour xaru ah wow. fi mooy tax finalement nit ñi keroog attaqué naa leen ngeen baal ma yéen waa diaspora nee naa leen vous avez fui mais yenn saa yi tamit votre fuite est normale parce que dëkk bi ñu leen cër bi ñu leen waroon jox joxuñu leen ko acca euh, waaw waaw moom kañ waxtu bi jot na moom laa doon def tàggatoo <laughs> dégg nga waaw fu loolu laa doon chronique tey di jéggalu ñëpp di baal ñëpp ak di nuyu ñëpp waroon naa ubbi téléphone bi mais euh, tey dama tàng temps bi moo ko moo ko mayewul ñi joxe dig dig daje rek incha allah suba dinaa teewaat fii incha allah ci public matin bi jërëjëf Fall ak Ndeye Dime Ndaw nañ teew fii taal chaîne bi ci actualité yoo xam ne war nañ ko commenter waaye eh, ñu fàttee boobu de laa sa ko wax de Abdoulaye Daouda Diallo va démissionner aujourd'hui on verra on va suivre incha allah aca